بسم الإله ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي قدر ما قلبي بالاقتداء له شكوري بلا كفوري وهو نسيري من فدائي له اقترابي بلا احترابي له خطابي مع اهتدائي لك رضائي لك ثنائي لك التجاه الله أكبر الله أكبر barakaatuhu mbokki li fi teew yëpp mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu kenn ku seen tur seen sant indi ko suñu kilifa gi teew muy sëriñ sëriñ Fanta Mari mu Cheikh Amadou Fadal ak bokk mi baax yi mu ta àndal di leen nuyu turu sëriñ Abou Baraka mi nga xam ne mooy ñu ko Cheikh Amadou Fadal waaye di leen nuyu turu Cheikh Amadou Mountakha mi nga xam mooy jëriñ Cheikh Khadim di nuyu turu sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo jiite xadara bi nekk fi sëriñ Mamour doon barabam yàlla subhanahu wa taala sëriñ Mamour yàlla yàlla loolu leer yokk yo mane tas yi barkeem jégal ko jégal ñëpp jégal ay waajuram jégal ma xeew am ñu may nuyu sama mbokk yi teew yëpp nag ku lim da nga juum waaye bisu daa fàtt yàgg fàttali leen li war a rek ak li ko li tax fàttaliku la koo xam ne jaamu yàlla mag la woon mu Seydina Ibrahima alayhi salaam mu abul anbiya nga xam ne dund na juróom-ñett fukki at yu tegal amul takk ndeer mu ñaan yàlla ne na ko yàlla may takk ndeer bis bu may takk ndeer dana ko rey dana ko rey di jox ko yàlla muy sante ko yàlla loola may ko doom mu dem ba màgg ba war a mën fa jàcc subhaanahu wa taala fàttali ko génte mu waxoon moom ko waxee doom ji doom ji ko yàlla dimbale mu ko yàlla lépp sama boy defal doon yàlla digal mën naa fekk kon bi sant la xam ne ñeent sant sant bu njëkk ji Ibrahima sant yàlla bi nga xam ne ko bindaloon joxoon ko mu def ko yàlla musal doom yi doom ji sant na yàlla mooy waroon rey rey ko soxnaam yàlla moom mi xam ne ñoo rey doom rey ko xar mi nga xam ne que indi ko ñu ko àjjana mu dewaa ci àjjana saa si sant yàlla ñeent sant yàlla yi bis yi ci bis yi bu loolu wéyee ñuy bi suñu bopp dina fàttali rek ndigal sëriñ bi ak euh, li mu dénkaane ak intérêt rek te mooy war may dëkk bi euh, ab dëkk bu fa nekk bu fa nekkee da ngaa war a sàmmante la nga xam ne moom la borom dëkk sax ndax fii kër la kër sëriñ Tuubaa la kër sëriñ nag kër jaamu ka yàlla rek la ndax daana wax ne am na ñëw ci sëriñ bi naan ko sëriñ ba jàmm ngaaw sëriñ ni ko xam nga luy jàmm am ko jàmm xaw ma ko ma ko jàmm mooy jaamu yàlla jàmm mooy jaamu yàlla fu jàmm fu jàmm fu jàmm fu jàmm nekk jaamu yàlla nekk ko fa bu yàgg du fa sax yàgg kon ñun jàmmal si ñu nekk jaamu yàlla te mooy li suñ bis dëkk bi dëkk bi dañuy wax toujours ne du dëkk commercial du dëkk industriel du dëkk leneen leneen lépp du dëkk béykaay du dëkk lenn dëkk jaamu ko fi yàlla jaamu kaay yàlla borom li ñu am lépp jaamu yàlla ko may gental dëkk yu nga xam ne mag ñi dëkkoon si fu gën a jege ndox yi ak fu gën a sedd ak yëpp da ko bàyyi dëkk bi ci digg réew mi mu sañ fi di fi jaamu yàlla ba yàlla fekk ko fi xéwal yi nag ñu nga xam ne gis nañ ko fi bu ñu bu ñu bu tax ñu wax ci àdduna sëñ bi loolu tax bu sëñ bi ko taxoon ji loolu sëñ bi na defar jukki yi la moo ko taxoon jóg na defar nit ñi ba ñu yóbbu subhanahu wa taala moo ko nga jóg moo tax ñu sañ si fii ndax daw nit ñi ak ci loxo nit ñi moo ko indiwoon fii waaye di càggee dajale koom wala la lenn tax koon ju sëñ Tuubaa li ko mooy daw li ci ak daw nit ngi fu ñu jaamu yàlla kon nag bu ñu gàddaay fekk gàddaay ak tuxu daa bokkul nag loolu ñu bari xamee ko gàddaay mooy gàddaay lépp yàlla tere nga bàyyi ko lu mu diine nga nekk loolu mooy gàddaay tuxu nag moom fa bu neexee nga nga toog bu naqaree nga gàddu si bagage kon nañ gàddaay te bañ a tuxu kon sëñ bi joxoon ndigal yi suñu mbokk Baay Faal yi ñooy ñaan yàlla dimbali ndax ñoom ñu ngi wër kër kilifa yëpp fu ne dem nañ fa leeral sëriñ bi dafa nekk jëw ji dafa nekk leeral ko ndigalu sëriñ Tuubaa mi nga xamante mooy jëwriñ sëriñ Tuubaa leeral ko mm, li nga xam ne joxoon nañ ko ndigal mooy sàmm wóor ba dëkk bi sàmm wóor ba waa dëkk bi li fi ëpp solo mooy mm, li taxaw borom sañ ko rek ñu bañ ko fàtte te kuy ñëw ku ne amoon nga mu moo soloon bu mu aada nga soloon kon nañu um suñu mbiru aada yooyu suñu mbiru diine mooy ibaadatu loolu mooy mbirum sëriñ Tuubaa waaw ñoo maa ngi guddal te guddal dana kii ñu góorgóorlu baax te ñaax sama mbokk yi euh, tu tànk yi nga xam ne ay ndaw lañ te ñooy euh, jil bi nga xam ñoo jëm ëllëg war a yor adduna war yor réew nga xam ne ñooy way jur yi euh, taxawu leen jàngal leen al islam jàngal leen ak taalibe waaye jàngal leen ñu koy rafet mooy makaarim al axlaaq bu ñu dañ ko am ñoom ñoo war a yor ëllëg ji fi kon nag nañ fexe ba dañuy wax ne wan ma sa ndaw tey moo na sa sama ko ëllëg kon ndaw ñi ni ñu rek ëllëg noonu noonu mag ñi mel kon nañ fexe ba ndaw ñi nga xamante ne yàlla jox nañu ñu tàggal leen teel a ngi ci te yëngu yi am ci réew mi ak jamono gi ñun suñu yoon ci dañoo war a nekk ci li suñu tuwaajaloon rek loolu bu ñu nekkee li suñu tuwaajaloon duñ tal yenn yi am xam ne ñàkk yar rek la ak ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk taxawaay bu bu rafet rek suñu waajur yi moo tax waaye lu xale yi defuñ dara ndax ndaw moom moo moo garab gu ndaw gu yi rek la boo ko boo ko yërum yar boobu ndax dañu wax ne gone ak bëy Eh, ñoo ñoo ñoo yem boo eh, fekkee ne maanaam jënd ak buum rek dañuy ruur te ruur moom lañ ci biir kon ñu jéem a taxaw sunu ndaw yi jëm leen jàngal alxuraan jëm leen yar yor du saam yar yor taalibe ñu sax ci loolu bu ñu bëgg dem maa ngi sant yàlla baax di sant te ñaan bisu yàlla ko tey at yu bari dañu ñëpp ne bisu koron jaay ci yàlla la moo tax ñu daje fi ñun ñii di ko jaay am jaamu yàlla bi nekk ci suñu kanam yi nga xam ne war naa war naa war nañu war nañoo tur léegi nii te deful lenn te ndax bakkan yëpp moo yem ci yàlla suñu bakkan bi bakkan yàlla bind ndax lépp bakkan la waaye moom yàlla togg jën jëf togg dara waaye da ko def ngir a daama daama nga xam ne ko na jëfandikoo ren bi ñu mettee koo def koo def koo def ba noppi na ko jëfandikoo tekkee kooku xam ne teraanga doomu teraanga yàlla la waaye bu fekkoon ne ko dana gën a lool bis bi jàggee boo xam ne pokkariwu wala jiy tiitru dee loo xam ne dañu ne am na ku ñu ci war a faat faatuwuñ am na ñu ci war def leen duñ ko ba tax ñu jotee ñu xar mi ñu war ko lewetal kon maa ngi sant yàlla baax di sant tey siyaare kilifa yu teew yëpp rek ñu toog ak suñu bokki bopp yi nga xam ne mooy suñu Abdou suñu Xaadim suñu Abdoulaye Nour suñu maam Moussa ñooy sant baax di sant di sant njaboot tey sant waa koñ bi tamit sant bokk dëkkandoo yi suñu bokk seex yi nga xam ne mooy waa Njaay yi xam ne ñoom naka jëkk seen lépp suñu tuwaalo wala suñu tuwaalo sam suñu mbokk waa gis ñu affaire yi mbàkk yi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ak koo xam ne bàyyi ko ci ab wax di julli si rek yëpp daje nañ fi xeet yëpp daje nañ fi maanaam ñu sëñ Tuubaa def seen maam ko ci barab booba ñëw tees yi barab bii ngir ànd ñun liggéey bi jàppale si Moussa ci ñekk gi nekk yi Moussa ba góorgóorlu sant yàlla baax ñu am yaakaar bu baax na ci xam ne dana jëm kanam ndax yàlla na yàlla fa cat li ñaan rek yàlla dimbali la sutura la taxaw la dimbali la moom ndax mu jóg ko mu réer fi nga nekkoon yaa ngi fa doy sa waay li la nekkoon ñu xamee ko li may daara ja jàng ba maanaam jàjj ba euh, àlluwa ja àll ba allahu akbar loolu nga xamoon sëñ Maam Mor kenn yàlla na ci yàlla saxal ñëpp ko fàttaliku boo gisee xaw ma jaxasoo saa bu ñu taxawee fii rek day mel ne jëmm ji ma taxaw suñu kanam euh, lu bari bari euh, xam ne kenn xam kañ la kenn xam kañ a ñun yàlla rek du fi jógee mukk ndax xajoon na fi waaye yàlla ma dafa ko sow kon dënd bi ñu dënd woon ginnaaw bokki taalib yi wëllër yi xarit yi ñëpp ànd yow tee soit ci barab bii ndax am ñoo xam bu la ñaan kat mën nañu mën ko waaye nag dañuy wax dong suñu tuwaay ki miraasu leen kenn si jikko nga ànd ñoom baax kàddu yi la waaye lu jublu man maa maa maa matut ñeen siyaare di leen siyaare bi nga xam daana teew fekk mu génn réew mi moo tax teewut waaye bu suñu sëñ teewee rek teewal na fi jaboot suñu fàll jëpp jaboot Seex Xadim teewal kon kàddu yi eh, jàkk tàggal ci wax moo tax mu ci wax lu bari waaye da sant daal wér sant kon ñu gën a góorgóor bu baax ci li ma li ma waxoon léegi rek sàmm ni Sëriñ Tuubaa dëkk bi sàmm ko dëkk bi kenn ku ñu daal na fexe xam ne jàpp ne Sëriñ Tuubaa mi toj peggam lu mu ko du bu bu ko xam ne am murid noonu la murid du triger triger mooy wala lépp ñu ngi si wax loolu yàlla bi du ko def asgo du kon ñu gën a bu baax ci sàmm jikko yu baax yi rek jéem a roy suñu mag ñi way jur lu baax baax rek dañ koo roy ndax xat kaan lakum fi rasulillahi uswatun hasana yàlla moo waxoon sallallahu alayhi wa sallam wa sallam suñu saar yi daana wax ne Sëriñ Tuubaa kenn mënu dimbali moom loolu seytaane ba su ko roy du ko roy ci a roy ñu doxee ñu ko ñu ko jéem a roy te mooy bëgg baax bàyyi mooy Sëriñ Tuubaa euh, sant sama mbokk taalibe yi ci nga xam ne ay jëwriñ ñi ci tool sëñ Tuubaa bi ñu gën a ñaaxaat njaboot bi gën leen a wala njàngam sëñ Tuubaa ndax yii fii daa bari waaye ñi yàq moom ñu am dem ci àdduna ndax lii liggéey mag la boo xam ne mag liggéey na ko ba noppi te mu yàq wees na ci moom sëñ Tuubaa moo ko liggéey ba mu ko liggéey kenn dimbalu ko ci woon waaye yàlla rek la nekkoon teg ko teg ko jox ko léppam ba yàlla fay ko li mu ko fayee kon nag képp koo xam ne yaa ngi fii ni fi ñu fi ñu fi defaroo waaye kenn du fi yàq yi mën nañ su fee yàqu nag waaye kenn mënu fi yàqoo barab bu ñu may yàlla amul nag waaye ku ma yàlla amul waaye bu barab bu ñu mooy yàlla am na waaye nag lu Sëriñ Fallu waxoon ne ab ron ab fi loo sori sori sori te nekk lu Sëriñ Tuubaa bëgg yaa nga ci lam tere sori ko loo sori sori ñu boo ko da nga dëkk ci te sëriñ bi digg defoo ko lu mu tere boo ko roq bi dañ la roq sànni ko ci àll ba kon nañ ci bokk ji Sëriñ Tuubaa tànn dëkkandoo duur yi maa def ci doon jë naa jël suñu jaay wax sànni tànn na sama dëkkandoo yàlla musal nañ ci perte perte na jàggee jënd juróom yaay fukk loolu perte loolu ñàkk bénéfice la perte mooy ñàkk yëngu ci mbir jàpp ne lu baax nga def nga dem ba yaakaar ne ëllëg boo yaakaar waxee ñu ne ko amoo na yàlla na ci yàlla musal ñi sant jigéen ñi sant mag ñi te ndaw ñi te ñaan yàlla fi teewaat yu bari yàlla mu doon suñu teewaay saa bu fi teewaat yàlla ñu fekk yàlla jéggal suñu bakkaar bu ñu wees ci héritier yàlla bi ñu jëm ko di yàlla yàlla xiir te ñu ci yoon saraat mu sàqi ba duñu def lu yàlla tere duñu def lu yàlla gërëm yàlla ñu subhanahu wa taala téer boobu nawet bi ñu jublu si nga xam ne jëpp ay béykat lañ yàlla ñu ci yàlla defal nawetu barkeel boo ne li duñu ëpp duñu yées duñu fóon te ñu muurloo ko jaamu ko yàlla eh, yàlla na jaamu ci réew yëngu yu bari bi lool waaye yëngu yooyu yu bari bari bari bu ñu toogee fii xam fañ Sëñ Tuubaa tooloo rek dara du yàq ñun kon nañ gën a góorgóorlu baax baax a baax kenn ku ci daal jàpp ne moom la Sëñ Tuubaa bàyyi ci àdduna lu yàq moom la waaye lu baax moom boo kenn ku la gëmee rek li bëgg doo ko insha allah taala eh, tey fàttaliwaat nit ñi rek ñu xaw a wàññeeku ndax fan yi moom nit ñi sonn sonn nañ sonal ci xeeti tabaski tabaski du farata sunna rek la ku man baax na ku mënul wàcc na la ndax yoon bi solo defalal na ko jëpp rek waaye ñu nekk toog jànkoonteen ay yoo xam ne jëru ko ñi ci kilifa yoo xam ne jëru ko ci ñoom ndax kilifa yu bari bari bu waxtu jotee daanaka xam ci lu nekk dañu kii ci seen téléphone yi kenn du ma gis kenn du lépp ay firnde la ñu demee te fekk loolu yàlla waaye fan dama yàlla ku ne la yàlla yaa teg man nga ko yàlla teew doomu aadama mënul kon loolu ci acité dañ ko bàyyi xel te xam ne ku mën wàcc na waaye tabaski jërul ci naan nit topp nit daw am ñoo xam ne lu ko jax sax du baax euh, yàq lu bare euh, ndax ñàkk la ko yéene wala mu bëgg sàngam del jox la ko waaye mënu ko loolu nag maa ngi ci dawlu sama bopp di bokk taali bi yëpp ñu war a wax ndax suñu kilifa sol nañ leen mënuñ ko wax nag as gor am ñoo xam ne mënu ko wax waaye bët bu du su tëj te am na ko asgor su su ko laajee dara te mënu ko dana nekk ci moom lool kon ñu bàyyi xel lool rek dëkk bi moom dëkk sutur la dëkk teraanga dëkk yónnante la koo gis mu ñëw ci yow joxoo ko la mu laaj rek daa a dimbal ndax loolu suñu caa dimbal ba taxawoon àll bi tax wala taxawoon àll si xabaar kon loolu maa ngi gàtt maa ngi yawoon si kàddu yi lu ci jublu bi la waaye lu gàtt lu ci dëng man maa mënut wax rek waaye sama yéene yeesoon na foofu ma ne ni ndokkeel yi ñëpp di leen baal àq seen la sama kóllëre ak yéen te ñaan yàlla ngeen jégal ma nag lépp loo xam ne juumte la ci man ak lu bi kon waax dafa naa alhamdulilah daal ñaan mo su dama